xibaaru bis mbokk yi tey la talaata ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru gàmmu atum junneek ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yemoo ko talaata ñaar fukki fan juróom ci weeru octobre atum ñaari junneek ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis ci Ali Imran TV li ci gën a dañu koy doore xibaar bu tiis bii di ñetti xale yu lapp démb ca géeju kusum gi ci korni supp ndakaaru bi euh, démb ca bëccëg nag la wallukat yi tàmbali woon seet ga waaye nag yëngu-yënguy géej ga moo taxoon daal ba gisuñu leen tey jii ci suba nag ba ñu xëyee la ñu delluwaat ca barab ba ngir wéyal ceet ga ca noone nag lañu ñu gisee néewi ñaari xale yu góor yi mu des nag kenn ku ñu gisagul ba léegi waaye nag jamono ji ñu ngay wëyal seet ga ngir teg koy gëtt caali màkk di gox bu nekk ca diwaanu kanel foofe nag askan waa mer ba fippu di fésal seenu naqar la ko waral nag mooy wenn waxambaane wu ñàkk bakkanam ca dëkk ba te te ñu ne nag daal njiitul raglu ba moo ko sàggane nag ba tax mu faatu ca noone sax lañu ko yëgale cala wi dëkk ba ba jël na sax dogalup dàq njiitul raglu ba ca saasa kuréelu kopparal geek saytu gafaka réew mi goog ngombalaan gi ñoom nag dinañu door seenu liggéey tey jii ci euh, talaata ji liggéey yooye nag dinañu ko woyal daal ba fukki fan ak ñaar ci weeru euh, novembre di liggéey yoo xam ni nag bu nu sukkandikoo ci sarti ngombalaan gi euh, saabalkat yi duñu ko mën a teewee juróom ñetteelu ndajem réew yi Afrique yi ñuy amal fii ci ndakaaru te jagleel ko jàmm ak kaaraange ñeel réew yi Afrique yi ca ndaje moomee nag la njiitul réew mi Macky Sall yëkkati ay kàddu di ñaawlu nag foqati nguur gi ñu nemmeeku ci réew yi Afrique yi te duñu ko jaar ci sart yi yooni réew ma tëral moom njiitu réew mi nag teg na ca di ñaawlu daal eh, li mu gis ci mbaali jokkoo yi nga xam ni daal ay wax ju ñaaw ak ay wax yoo xam ni daal mën naa euh, yàq rekk jàmm ji nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci réew mi waaye sax nag mën naa yàq tamit jàmm joojee nga xam ni daal moom la ñuy waxtaane ci réew yi Afrique yi muy wax ni daal mbooleem ñi nga xam ni daal ay defkati ñaawteef la ñu te di ko jaarale nag ci mbaali jokko yi nañu leen topp fu ñu mën a nekk teg leen ci yoon ka teewaloon réewum France ca ndaje ma moom nee daal mboolem jafe-jafe yi àdduna bi di dund nag kenn waralu ko ku dul réewum Russie tey ji ci talaata ji waxtaan di dox ci diggante réewum almaañ ak réewum Sénégal ñuy waxtaane nag lu aju ci lëkkaloo bi dox ci diggante ñaari réew yi ak toll waayam docteur Abdourahmane Diouf génn na ci euh, lëkkatoog aar Sénégal moom nag xamle na ni daal day delluwaat ci li euh, ci yittey làngam gi di awale ndax daal la ko boole woon nag aar jàll na te mooy simbu jongante yi tànn euh, jàmbur yi war a dem nag ca ngomb ngombulaan ga ngir teewal fa réew ma te loole nag wéy na ña ñiy fal fal nañu leen ba nu jël seeni toogu mbokk yi dañuy daaneele rek ak tàggat yaram wax nag ci jongantey waada yi Europe yi tey ji nag danañu ko wëyal bu fukki waxtu waaw bu fukki waxtook juróom benn jotee ba tegal ñeent fukki simili ak juróom FC Séville dana daje Kovenvan ci waxtu woowee tamit Salzburg dana ca dajeek Chelsea bu Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly bu fukki waxtoo ko juróom-ñeent jotee ci ngoon Dortmund dana dajeek nag Manchester City ci waxtu woowee la Dinamo Zagreb di dajeek Milan Paris Saint-Germain moom itam ci waxtu woowee lay dajeek Maccabi Haifa euh, Leipzig di Barouk Abdoulahat Diallo moom itam bu fukki waxtoo ko juróom-ñeent jotee dana janoo ak Real Madrid ben euh, moom itam ci waxtu woowee lay janoo ak Juventus Celtic di janoo ko Shakhtar Donetsk ci waxtu woowee euh, mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaari bis bi ma amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen leen dig daje ëllëg ndem na yàlla